internet bu Guédiawaye info TV ñu ngi leen di di leen ziar ah, di leen wax ni rek xam nañ daal di am benn break bu ñu observé woon ak diir bi koor di ak léegi mais dara waralu ko loolu am na am ten tey ñu ngi ko doon xalaat mais dafa noppeegul woon parce que bu fekkente ne tey su ma naataangoo yi ñoom dañuy def li nga xamante ni mooy euh, ndogu mbër Guédiawaye Info de par son son caractère ingénieux daf doo ñëw andi leen li nga xamante ne mooy kóoru mbër une façon de se démarquer de ce lot bi nga xamante ko leen li xamante ne mooy kóoru mbër ndax comme ni ñu ko waxee ci nasaraan rek il ne il ne mettre la charrue avant les bœufs tey ba avant ñuy wax ndogu mbër daf fekk tey li nga xamante ne moom mooy koor moom moo jiitu moo tax tey ñu daal di ñëw daal leen andil li nga xamante ni tey euh, mooy kóoru mbër daal ci war a ànd ki nga xamante ne mën naa ni kenn doot ko présenté kenn doot ko présenté tey ci yaram ci tegginam waaye itam ci ak taalibeem waaye aussi ci xam àddunaam mu doon mbër moo xamante ni mun nañu récemment aussi demoon na fi voyage daal di ñibbisi euh, mu doon Alioune Seye numéro 2 bu écrit doon ki nga xamante ni nga xam la Baye Fall lañ koy tuddee ñu bàyyi ko rek mu daal nuyoo présenté wu ñu doog ko commencé ci waxtaan bi mbër ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw Ardo maa lay ziar Thiandoum 2 maa lay ziar bu wér gannaaw baat onze bilaay mina seytaan rajim dañuy sant yàlla julli si yonent bi rek di sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kambaroo borom daal sama sama gaawaan mu yàgg fi loolu te di ñaanal sëñ Cheikh Jëmu Fall mu yàgg fi lool te wér waaw di ñaanal xalifa général de Mourides mu yàgg fi lool sëñ Mountakha mu yàgg fi lool te wér di ziar kull koo xamante ni yaa ngi yaa ngi bëgg Alioune Seye numéro 2 rek maa ngi leen di ziar di leen jox seen cër lu bëri bëri doole waaw ziar wér waaw. waaw champion bu ñu nee kooru mbër tey ma laaj la buñ nee kooru mbër mbër mi wala jullit bi aussi ban comportement la war a am ci koor. waaw comportement bi jullit war a am rek. même bu dul koor sax comportement wi bi jullit war a am moom nga am rek bu bu muy koor ak bu dul koor mooy benn war nga yar sa bopp ci maanaam ci dugg li sa yoon nekk xam nga ci jullite ci njàmbure jullit bu nekk noonu nga war a noonu nga war di doxee noonu nga war di jëfee sans autant que mu ne ci koor mu ñàkk ne ci koor waaw ba tax na ñun ci loolu lañ ñu tàggat ci loolu lañu yar moo tax bu koor ñëwee ñun du am problème yooyu daal waaw. waaw ah, buñ buñ buñ desee tamit ci biir koor googu rek ñu si bëri moo xam muy mbër wala nga ne nga bañ a nekk mbër ku ci nekk daa am nooy gérer sa koor yow sa journée koor ba ndogu ni muy jotee nan nga koy gérer nooy dundee loolu. waaw wax dëgg yàlla moom dañuy sant yàlla rek à chaque fois moom bu weeru koor teroo moom dañuy ñaan yàlla dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin sama journée koor moom li ma koy li ma koy ni ma koy defee moom wax dëgg yàlla su ma xëyul amoo benn activité bu ma def wax dëgg yàlla damay toog sama gaal la deux heures ma génn dem julli ji ñëwaat dem axlu kafe ga toog ak Baye Fall yi bégeeg ñoom segg kafe yi jox jaamu yàlla yi xam nga ñu bége ndogu jot xam nga ànd ak Baye Fall yëpp ndogu rek waaw noon daal la demee. kon li ñuy faral di gis muy axlu kafe gi nga xam te ne gars yi ñu ngi koy def yaa ngi koy faral di dund ak ñi nga xam te ne dëkkandoo. waaw waaw waaw ñu ngi koy def axlu bi boobu presque maa jëwrin bi waaw maag samay tuut tànk ñoo fa nekk lépp sama loxo la aju maag samay doom yoo xam ne waxuma samay rakk sax mais ñooñ samay doom lañ ñu nekk xam nga jàpp ci liggéey même bu mu utee liggéey bi sax ñoom ñoo ñoom ñooy wuti liggéey bi wax dëgg yàlla ñu nekk ay xale yu am passif mooy ñoom Tamsir xam nga ñoom ñoom ñoom Samba xam nga tout tànk yëpp daal maa leen bëggee di leen ziar waaw. tey bu ñu revenir tuuti ci sa enfance parce que ci nekk tey ci wàllu koor am na loo xam te def nga ko mu la ci sa enfance bi ngay nekk ndaw ban anecdote nga a nettali nga ko Thiandoum de yow problème nga fi nar a indi waaw mais comme ni ko comme ni ko comme ni ko gars yëpp di defee rek xam nga jaar-jaar mu mënta ñàkk ci doomu aadama xëy na loolu xam nga atletik ndaw la woon ñun nag wax dëgg yàlla dañoo teel a dugg ci koor moom ndax ñun loolu lañ ñu yore mais ñun ñu doon ñu doon ñu doon maanaam ñu doon wóoree wóoru gaale yenn saa yi da nga doon kii mar gi moo la doon gën a sonal quoi pas lekk bi. da ngay ñëw war a sangu ji root si yooyu ba mu rembet rek nga dugg ci biir da ngay naan ba presque dangay ngay paralysé xam nga boo boo boo maree naan moom ci di sàcc da ngay bëgg a naan benn yoon rek mais da après ngay jóge sax feebar nga ciy jëlee ndax biir bu metti wala noonu ñun daal noonu lañ doon noonu lañ doon kii waaw boo génnee nag waaw waaw boobu moom maa ngi am ay ay ay ay ay ah, ay ay huit ans dix ans ah. waaw ndax man moom damaa teel a woor moom suñu kër moom presque da ngay judd rek woor waaw moom loolu lañ xam quoi ci loolu lañ ñu yar waaw. ñu gis également musulman yu bëri ñi farataal nañ xëdd ñi farataal farataal luñ xëdd est-ce que mbër farataal na xëdd. waaw mbër moom boo waxee wàlla wan moom bàyyi la mbër moom man moom wax dëgg yàlla moom faratal naa xëdd mais su ma ko deful tamit amul ngaañ quoi ndax man ma xëdd ak ñàkk xëdd laay mais faratal naa xëdd nag wax dëgg yàlla ndax bu dul loolu sax damay yeewu fajar damay dem jàkka ja xam nga dama ci profité waale xëddaale xam ma demaale jàkka ja waaw mais xëdd moom dafa bokk ci koor waaw xëdd dafa bokk ci koor ndax da dimbali daal waaw ndax da lay dimbali boo boo reeree boo reeree ay minuit bëgg a toogaat ba suba 19 heures wala 20 day metti mais boo xëddee tamit dalay dalay dalay bénéficier daal am yoo xam ne tamit bu ñu xëddee dañuy sonn bu ñu xëddee dañuy sonn dañuy sonn ci journée bi mais daal xëdd daal ci koor la bokk moom ci gàttal waaw waaw ñu def également benn constat muy am na jullit yu bëri dañuy faral di wax ni am na lu leen gën a ci koor am na ñoom atmosphère bi mooy avant avant ndogu ni ñuy nga xamante ni mooy dog seen koor am xamante ne nee nañ da ngay am temps journée bi yëpp mun a def sa activité doo ko dagg ngir ko dagg ngir dem añ tey su ma laajoon mbër lan moo ko gën a neex ci koor. waaw koor li ma gën a neex ci koor mooy maanaam dal bi julli di àndal fii nii Sénégal dal gi muy man loolu ma gën a neex ci koor yi da ngay gis ñoo xamante ni dañ doon bëri ay rëpp rëpp sax mais weeru koor da gis gars yi nu ñu koy sellalee gars yi ni ñuy nu ñuy dalee nga gis dëkk bi nu mu nee tekk xam nga ku nekk jàpp sa mosu ñàmbur yàlla xam ne loolu ma gën a neex ci weeru koor maanaam dal bi xam nga ak jàmbure gi rek te loolu war a continuer man loolu ma gën a neex ci koor wax dëgg yàlla waaw. mbër ñu def transition rek daal di dugg ci li nga xamante ne mooy làmb euh, parce que defoon nga fi voyage récemment juste avant koor gi benn voyage boo xam te ne voyage bu gàtt la woon rek un court péri pour nga daal koy def dem daal dellu si waat avant tout lan moo waraloon voyage boobu objectif bi lan la woon. waaw objectif bi euh, leen la woon rek am foon amoon fa ay partenaires yoo xamante ni xam nga war nañoon dem am gëstu lu ñu lu ñu gëstu foofu looloo waral dem bi rek mais dem nañ ci jàmm ñëwaat ci jàmm wax dëgg yàlla sant nañ bu baax di sant tamit xam nga bañ demee tamit amuñu fa benn problème lañ doon lijjanti wax dëgg yàlla yàlla def na ci sutura ñu dem fa nag nekk fa ak nit ñu baax ñoo xamante ni sama benn jantal grand boo xamante ni moom la wax si rajo jàll xam nga falaa daloon xam nga moom ak ay doomu ndeyam baax si rajo jàll ñoom xam nga restaurant moment maa ngi leen di ziar bu wér di leen wax ne gis naa taxawaay bi ak jàppale bi ndax àll dafa metti soo génnee rek xam nga gis ñu la taxaw rek ñooñu war nga leen jàpp fii la ko juróom ñaar wër na soo laay ñoom xam nga ñoom Pablo ñoom ñoom Cheikh Dega xam nga gaa yëpp ñoom Mor. gaa yëpp maa leen di ziar di leen bëggee lu bëri doole waaw ñoom Basirou Ndiaye xam nga ñoom Diaw maa leen di ziar bu wér a wér a wér a wér kullu nga xamante ne yaa ngi woon restaurant maman maa ngi lay ziar bu wér a wér bàyyiwuma kenn waaw. premier voyage bi nan la demee parce que ñu bëri dañuy faral premier voyage dafa metti surtout avion buy décoller tàmboo ko day xaw a abay jeexi jàq quoi xaw a tur. waaw non premier voyage da gars yi ñoo ko bëgg a compliqué rek affaire yi moom compliqué wul quoi barki Seydina Mohamed. non pas caalit am na ñun moom xam nga boo nekkee fii nii nekk jeune yaroo fii dara du la jommal dëgg la nag di nga di nga di nga dund loo xamante ni mosoo ko mosoo ko dund mais du la du la yóbbu fenn tamit da ngay da nga koy jàppee ne benn benn benn affaire boo war a traversé la rek mu demee noonu quoi wax dëgg yàlla awma ci benn njàqare wala ma ci am benn kii dama jàpp lii xam nga bagage boo xamante ni dañ cee war a dañ cee dañ ko war a jëfandikoo rek xam mu demee noonu mais man gisuma ci benn benn benn benn benn benn danger wala benn affaire boo xamante ni compliqué nag waa waaw. ci biir voyage bi nga def une semaine et quelque su ma juumul dina temps boobu nga fa def Alioune Seye numéro jot na fa def ay séance d' entraînement wala ci lan nga gënoon focaliser wu. waaw am na business yu ma doon lijjanti wax dëgg yàlla dox naa ko fa dem naa fa salle waaw entraîné naa fa presque deux jours xaw ma trois waaw mais loolu sax moo ma gënoon yëkkati wax dëgg yàlla doon dem xaw pour gëstu saal yooyu noonu. mais wax dëgg yàlla li ma fa doon xool moom gis naa ko fa moom wax dëgg yàlla la ma fa doon xool gis naa ko te incha allah yàggatul dara incha allah dañuy dellu ci kàttanu yàlla incha allah waaw. Ah, mbër bu loolu weesoo avant ngay dem fi nga xamante ni mooy voyage euh, dafay baax aussi nga préciser ñi nga xamante ne ñooy bokk internet yi voyage bi fan la woon parce que dégg nañ Italie ñu ne Espagne. waaw Italie laa demoon Italie laa demoon waaw Italie laa demoon Torino laa nekkoon maa ngi ziar waa Torino yëpp waaw fa ma daloon daal. maa ngi leen di bëgg lu bari doole waaw di ci jiital siraajo nag ak maña nga xamante ni waaw ñooñu daal seetaan ñu ma daal seetaan ñu ma jàpp nañ ci bu baax a baax a baax a waaw ak ñoom Basirou Ndiaye ñoom jaaw sama booyooy nga xamante ni wax dëgg yàlla ba ma ñëwee amatuñu fenn soxla xam nga chaque jour mbër lii chaque jour mbër lii xam nga maa leen di jaajëfal bu baax ak waa restaurant moment xam nga ñëpp maa ngi leen di ziar daal di leen bëggee lu bari doole waaw waa bu loolu weesoo ñu wax ci sa tolluwaay ci làmb parce que gis nañ jamono ji làmb ji ni mel am na ay combat am ni ko doon dox bi avant ngay dem mais gis nañ finalement mujj la am tolluwaay Alioune Seye 2 ci làmb. waaw tolluwaay alin Seye 2 ci làmb loolu dina neex a dina neex a ndax wax dëgg yàlla doo fi lim dix mbër yoo xamante ni di nga ci génne Alioune Seye numéro 2 kon maa ngi ci loo waa maa ngi ci maa ngi ci bain bi xëy na nag yéex a xam nga yéex a bëree beeg ñàkk combat rek la ñuy wax. te loolu yaakaar naa du ci man ndax li ma war a def yëpp maa ngi koy def wax dëgg war a def yëpp maa ngi koy bu dee entraînement maa ngi ci bu dee respecté li loi làmb laaj rek maa ngi koy def mais xëy na jaam da ngay bëgg mais yàlla moom mooy dogal ay ay mbiram xëy na nii lu ko tuddee nag dañuy sant yàlla bu baax taxul ñu yàccaaral wa ñuy def beneen kii doo ñu gis ba yërëm ñu wala ñu gis banaan noo kii lu tax amul nangam nangam ñuy sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla ñuy sant yàlla bu baax ci nim ñu def ñii daal xëy na ay ngëneel la sa combat ak doomu dàngu ñu ñu ci doon wax ñu promoteur yu bëri daat ci sori woon lan moo tax finalement mu jël am combat bi avorté. waaw loolu moom du ci man ndax ku joxe dem ba joxe sa kàddu kooku pare woon nga quoi mais mooy li ma rek góor su ne góor nga rek soo waxee rek yeew nga sa bopp wala nga yeewi sa bopp. amaa amaana amoon na promoteur bu ñu waxaloon ba tënk xam nga ci moom lañ doon déglu nag mais mooy li ma la wax rek li jaam di bëgg ak li yàlla dogal moom bokkul xëy na ba doomu dàngu jël na keneen. yàlla na ko leen combat boobu jik te man daal maa ngi xaar pour mbër yëpp laa wax dëgg yàlla pour mbër yëpp laa sant yàlla daal waaw amaana dafa amaana daal noonu noonu la war a demee rek mu demee noonu waaw mais ñu ngi ciy sant yàlla baax nag. bu weesoo doomu dàng est-ce que ñu lay proposé fi mu toll nii. non bu dëgg dee fu mu ne nii moom waaw proposé wuñ ma kenn nag waaw proposé wuñ ma kenn mais ñu ngi sant yàlla baax a baax a baax a baax waaw ñu sant yàlla baax. nekk su lu ñu war a nekk daal waaw nekk si lu ñu war a nekk waaw di gërëm nag Moustapha Diop mi nga xamante ni wax dëgg yàlla sama voyage bi da cee sonn trop trop trop trop trop Moustapha Diop Baye Fall barki Cheikh Fall non du question de gërëm sax mais xam nga ñun ci occasion yi lañ am pour di xam nga di di leen di leen jaajëfal sama yoon bi da cee sonn moom moo ma dagal billet xam nga sonn ci boole coog ay démarches yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee ñu ngi koy jaajëfal bu baax ay Ibu xam nga Maguette Seck sama doom yaay maa ngi koy ziar wér a wéer di gërëm ñëpp nekk waaw ñi nga xamante ni jàpp nañ ci voyage bi Dieye seen promoteur maa ngi koy ziar wéer a wéer waaw. le mot la ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo moom mooy di sant rek di gërëm képp koo xam ne yaa ngi safoo Alioune Seye numéro 2 di ko bëggee di nuyu Papa Ndiaye mi nga xamante ni wax dëgg yàlla moom laa àndal fii sama rakk bopp lu lépp lu ma dugg soo ma ngoon mu ngi ci. waaw damay santaat rek di gërëm wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni ñoo may taxaw di ma jàppale su amee su ma amee combat ak su ma amul combat euh, càndum lii dama bëng nga tegal ma ko wax dëgg yàlla mustapha Diop Baye Fall wax dëgg yàlla maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko sant bu baax a baax di sant waa Italie Torino fi ma nekkoon Siraja Diallo maa ngi koy sant Mañang xam nga maa ngi sant Jili di sant ñoom Mor Torino xam du sant ñoom ñoom Basirou ñoom Diawo di sant ñi nga xamante ni euh, monsieur le maire Baydi Ba Seydi Bay euh, euh, kii monsieur le monsieur le maire waaw monsieur le maire Alioune Sall maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant Ibou ibu doomu jëwrin maa ngi koy sant bu baax di sant sama doom nday Maguette Seck waaw alam ndaar baay Góor ñoom kasi xam nga maa ngi sant ñëpp ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi sonn ci man bu dara dul dara di sant sama parrain sama xarit sama sëriñ ministre Mamadou Mokhtar Cissé maa ngi koy gërëm bu baax di sant sama doomu ndey Zil Dieng képp ku nga xamante ne yaa ngi sonn ci Alioune numéro 2 daal ah maa ngi lay jaajëful bu baax encore une fois waa euh, Guédiawaye info barki maam Seera Fall ca kaw ca kanam maa ngi koy dog ci beer kay weeru koor bii nii yàlla ngeen fi jóge rek xam nga affaire yi saawaan baawaan barki Seera Fall maa ngi koy dog ci Seera Fall di ko dog sëñ Fallu yàlla ngeen am jàmm yàlla ngeen am tawféex taysiir barke Seera Faal maa leen di bëgg lu bari doole nag waaw. Bécaye nag yow sa combat bi yaa yaa càndum non yow il faut ma laalal la sa waay dina la wàccee yow nga xam ne lépp dëgg la. jaajëf mu nekkoon Alioune Seye numéro 2 comme ni nga waxee noonu mbokk yi xam nga di ko sant bu baax di ko gërëm comme li ma waxoon sànq rek moom ci yar gi ci teggin gi ci am ci am ci am taalibi gi aussi ñëpp daal ko ciy naw. Euh, donc ni ma ko faral aussi di waxee rek bu fekkee suma naataango yi bi koor di commencé ba léegi ñoom ñu ngi ñëw fi nga xamante ne mooy ndogu mbër te avant ñu naan ndogu dog sa koor dañuy wax koor moo tax ñu ñëw ci kooru mbër mooy kooru mbër waaw vraiment donc di leen gërëm di la jox rendez prochainement parce que du yàgg tuuti ñu daal jël yeneen champion di sant aussi suma ñaari techniciens yi fi mel ni l'incontournable <laughs> Bekay ak ki nga xamante ne mooy l'omniprésent Issa Koundoul